waaw bon Khalifa Babacar Sall suñu doyen la ci collectivité territoriale maa ngi koy nuyuwaale en même temps. Mm mais li ma mën a jàpp mooy amul beneen parti bu nekkul benn bokk yaakaar bu mën a rassembler cent vingt maires ndax li tax ma wax la loolu ñun dañoo am parrainage officiel. Mm -hmm. kayit yaa ngi nii soo bëggee photocopie ma war la mhm. ñu am ci quatre cent cinquante exécutifs quatre cent exécutifs territoriaux soo ko génnee ci lim bi ñi fay des du mot cent vingt ah, maires yu ñu exigé loolu c'est réalité signé nañu pour pare na Ba quatre cinquante suñu paree ma won la ci benn benn région par région nga limal sa bopp nga xool nga xam ne quatre cent cinquante maires xam nga quatre loolu euh, Benno Bokk Yaakaar dong moo mën a am lim mm-hmm. amul beneen waaw ah, au moo tax la la sortie de a jaaxal nit ñi on se demande soit euh, ñaar ñoo mën a nekk wala ñett bi ci njëkk mooy que li mu wax am na et que ça am na ñu wan ginnaaw bennoo ñu ko jàppale wala que euh, xëy na euh, wax na loo xam ne mën nañ ci am dut ñu ñetteel bi mooy doublon am ci mbir mi am ñu pare ne ñaari yoon. doublon moom yaak mënul am ndax man maire yi ko euh, le parrainage au niveau national. Mhm. man maa ko coordonné dans toutes les régions. du sécuriser nga ko muy Sédhiou muy Kolda région yi ba Kédougou. man maa coordonné personnellement le parrainage avec l'appui des équipes qui m'ont accompagné. Mhm. donc dañ ko sécuriser te maire aussi. du def jeu boobu mënul dugg. Mhm. di def ay double parrainage. oui parce que le citoyen mën na naqare contrôler. mais le maire moom day yomb le maire quand même il est mhm. suffisamment informé il est suffisamment instruit et nous avons quatre cent cinquante parrainages tey sax am naa parrainage mais limaale moo ko ci loolu. Mhm. tey sax am na ku ma indil parrainage dans le département de. de Tivaouane de de boo bon mënuma tudd tur bi mais am na ku ma indil parrainage am tey donc loolu ma certifié na de. amul benn parti amul benn coalition ba nga xamante ne mën na tey présenter cent vingt exécutifs territoriaux c' est pas possible. te loolu c' très important. oui c' est pour la suite ndax quatre cent cinquante collectivités territoriales mu représenter à peu près plus de à environ quatre vingt pour cent des exécutifs territoriaux loolu. c'est beaucoup plus que cinquante pour cent de l'électorat ndax ku fi falu ñaare maire yi ñoo la fal